ni ñu ngi ñuy bàyyi xel maa ngi leen di kontaane ñoom itamit lu bari bari yéen seen journal des faits divers xalaas ci euh, RFM baan maa ngi lay kontaane bu baax a baax a baax noo def maa ngi sant sant bu baax rek yaa ngi am jàmm waaw comme dab rek comme dab jàmm rek waaw ne ñëpp am jàmm comme dab mm-hmm. waaw ne ñëpp di bëgg di xàppi waaw yàlla yokk jàmm ju baax a baax a baax tey bëgg waaw tey tey tey tey fiix ah. waaw xool na na na fiix te kontaan waaw yàlla nañ ko yàlla def ci xel yi xol yi mhm. jële fi nag feebar bi suñu bëggee gën a kontaan mhm. waaw gën a mën a firi njaay ñu ngi lay bëggee baax a baax partenaire yi nag moom dama ci amoon dama dama la ko waxul woon waaye dama ciy dugal sama sama alal ci mhm. ci publicité bi sama alal dama ko ciy dugal <laughs> bëggoon nga jàllale ko TDK sama sama alal la sama alal a ngi fépp yow waaw sama alal actionnaire laa fa yow de sa alal a ngi fa dégg d'accord may ci ma may ci maa ngi soog a xam li tax waaw maa ngi soog a xam li tax léegi. waaw sama alal la. ay ca partenaires yi kay ñëpp. déedéet non TDK rek. ah déedéet. dans TDK rek. oui ma waaw soo xëyee looy njëkk def du sangu. waaw d'accord mais bu tuba ma ne ko bu gémmiñ ji tax moom lañ ko ne lekk gi rek. waaw mais moo tax teggi tuuma du ragal. waaw sama kër mosul indonde. Ah. buntu kër gi moo amoon ndox ma doon wut ay briques yu ma fa teg pour jàll. temps bi xat ma woo Passepartout ne ko waxal ma ni buntu kër gi dafa am ndox aw ma yoon bu ma jaar. Hmm. waaw Passepartout woo Ndiaye ne ko buntu kër Aba <laughs> amul ndox. kon la tout tuuma. Ndiaye <laughs> wax li ko neex yàlla na ma yàlla atik <laughs> maa ngi lay siyaar. ngi lay delloo siyaar bu baax a baax waaye yaa ngi ci jàmm. yow euh, ma laaj la moo yow Modou Mamène Diallo mu tax yow ah. Hmm. bugguloo man euh, may bég di kontaan yow la moo tax yow lu la wax ci man rek nga wëlbati ko waxee ko du la neex. déggoo li ab baan di wax. Hmm. dindu cim sàq ta saa yoo xëyee ñàmm <laughs> ah. ah ayca dañuy dem ci sa gaay wala. non TDK rek. ayca kon déedéet ayca nga xamul TDK bi. waaye déet waay ban waay. man nag bu doon may yow ah. une semaine lañ am. benn bis bu nekk dangay jël ñaar ñoo ci àndal wala ànd ceeg kenn waxal kuy baaxam suba keneen ki xaar keneen ki ñoom ñu loolu fayuñu maa <laughs> maay jégalu maay jégalu partenaires yi euh, àndaloon ñun ci xalaas de xam nga Abba di mhm. gën a neex mhm. mooy nga woote mbir ay nit fekk si la dëgg la dëgg la nga woote mbir ay nit fekk si la ci euh, moom nee na TDK te xam nga comme ban suñu suñu mag la li mu bëgg lañ koy defee. dañ tàmbale ak TDK li tax TDK. mooy ci jamono ji nga xamante ne ji jamonoy tàngaay la ñu nekk TDK dafa leen a jox solution ngir ngeen di mën di bëgg fu ngeen nekk mën di kontaan nekk dans la bonne humeur. ak large gamme bii di like. Euh, mhm. am ngeen choix ak euh, large gamme parfum like euh, bu la ci neex bu la ci neex ah, bu la ci neex li leer ba leer mooy ñi ko ñam bàyyiwuñu ko te ñi ko ñamagul ñu ngi leen koy digal mhm. TDK yamu ci defoon di benn savon thaïlandais boo xamante ne ji anako la tudd mhm. ñu defalee ko ay plante naturelle maanaam di gàncax gi dañu jël toog defar ko ba mu doon saabu dafa baax ci yaram <laughs> day dundal maanaam soo ko sangoo takk verre yi da ngay leer waay ban foofu day yaa fa yëgg ah, waaw non non <laughs> di man day wàññi ñaawaay il faut harmoniser la ilaha illallah non si credo capire doo ma bàyyi ma wax. ay ci ay ci eggali waay lii jë. Mbaala jàngal lool da nga wax ñëwal rek. lu ne yaa koy wax loo ci kër gi. <laughs> maa ngi woon ci euh, savon anaco thaïlandais nga xamante ne ji kon ay plantes naturelles la ñu ko defaree muy gàncax gi la ñu ko defaree dara raxu ko. ça vous xet bonheur neex lay am dafay dundal sa derba nopi noppi daf lay fraîcheur qui journée bi pour mhm. euh, boole qui ñi nga xamante ne daf a ñu am xetu yaram bu ñu utiliser savon thaïlandais bii di Anako mhm. euh, lépp la di dindil Optique Vision Plus Sénégal di partenaire ci xalaas borom lunette yu du yi était garanti wér te c'est un bëgg-bëgg moi lu waay am banya, am jafé jafé lunette moo social lu rëy la nuit def ñi ngi ci promotion tabaski bo xam ne nee nañ dañu koy wéyal ba tam xarit euh, progressif simple beaucoup ko déggee vision de près vision de loin la ñu boole ci benn d'accord mon <laughs> lunettes à 35 000 francs CFA une monture de marque et accessoires lunettes lépp amnésie boutique optique vision plus Sénégal c'est presque deux fa le showroom ba nek, boutique Sali nous avons une boutique Keur optique vision plus Sénégal ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h même samedi dañuy liggéey 9h à 14h 33 824 54 57 établissement waa kër Serigne Touba Fall frère borom gaamu vite fait yi xam nga ñu ngi ci nawet. Mhm. sànq yëg naa ne ñoo ngi waaj indi parasol vite fait. Mhm. Ah, donc moom ñuy foog. Ah, loolu gën a uh-huh. cuuraayu bant bi dàq yoo. nga xam mhm. ne fi mu ne yi moom lañ jël ci nawet bi moo leen di tàggaleeg yoo. ñoom pompe voilà ñoom moo duti nag Moustapha Fall. pompe bi leen di tàggale ak mbóot weñ ak yoo pâte dentifrice vite fait bi baax ci seen i bëñ mais frotté vite fait bi nga xamante ne jamono ji euh, foo dem fekk ko fa. gars yi ñoo ko bëgg ndax dañoo toll ci jamono yaram buy metti jamono yi euh, euh, toy jamono ay courbature ak yëpp moo tax bëgg frotter vite fait 77 555 11 11. 77 696 34 67 77 441 06 38 de Fabri Metal. tiens. yaa nga xamante ne ji nous euh, sommes partenaire la ci xalaas ñu leen bu a baax a Sénégal képp kuy ouvrier képp da ngay liggéey ci euh, BTP képp kuy yoon travaux yu mag yi xam nga Fabri Metal ndax ñoo ngi ci sous région bi ñoo ngi ci Sénégal <laughs> ci anam yi ñuy liggéey nak ñom wa Fabri Metal motax tax gaa ñi sopp leen gaa ñi naw leen seen wave ñu jagal ko suñu mbokki diaspora yi nga xamantene ji bu ñu nekkee bitim réew bëgg a seen mbokk fi eh, ci rew mi nga xaalis ci anam wu woor ci eh, ak tranquillité dañuy télécharger application seen wave yone ci xaalis ki nga ko yónnee bu ko joté jot notification bi dem ci point wave retirer eh, xaalisam Moutarde Chef ayda lay jéxalé ñom it di euh, produit boo xamante ne Sénégalo américaine entreprise ñokoy koy liggéey euh, Moutarde Chef ayda Amna, 50 kg, kon kilos ba ci sachet bu grammes lepp lu ngeen soxla euh, meilleur prix très compétitif même fukki deureum sax am chef Aïda couleur naturelle de la moutarde lolou Motard, ko jigéen ñi di ràññee motax ñu ñu ma aji doxal doxal bi ci kanam xam grand Amish waaw Amish animateur le grand animateur Euh, bëgg naa mu ñëw ci xalaas bu ngeen ko woo. Ah. day pompe kër yi ci corona bi. Ah. amis woo ko mu ñëw ci xalaas bi gars yi jàpp ci mu pompe gars yi ci pompe kër yi. ok amis wax naa ko ne ko na woo Mouhamed Ndiaye wala moo woo Adja Astu. ok ah d' accord dafa yor entreprise bu yëngu ci loolu. waaw waaw ah, d' ngi soog a dégg wax ji. amis baan baan femme bi ñu femme bi nga xam ne dañ dañ ko rey. waaw defeere nañ ko ko rey de. mais du moom rek de. de am ku jigéen ak ka ka yoroon oto ba ñuy sànni ci saako ba. pour lan ñoo ñëpp dem. wala ku jigéen ki ca koñ ba la dëkk moo daan doxal service sëriñ bi xaritam la moo moom la daan yónni añ ko doxal yenn service bi daal. Mhm. bi mu reyee ndaw si ba def ko ci saako ba defal ko ba mu baax ba pare. da koo woo ni ko kaay jàppale ma dara ma yóbbu ko dama ko yóbbu ci àll ba woo ko loom kalandoo bi ko loom kalandoo bi ñëw mun ko ubbil maal bi. ndaw si yéeg yi dugg ndaw si nag duggul ci néegu sëñ bi ci est-ce que yi leen daje mu jox ko saako bi saako bi diis ñu wàcce ko bu suuf borom kalandoo bi jàppale ko mu jàppale ko dugal ko ci maal bi ñu dem sëriñ bi ak borom kalandoo bi ak xale bu jigéen boobu ñu naan awa nit ñi dañ koy dégg souvent ci enquête bi nga xamuñu mooy awa awa mooy dëkkandoom bi ko daan jàppale kooku da ko doon jàppale rek ñu yóbbu ko ci suuf sànni ko neemaan bañ ko sànnee par nu mu def ñibbisi wuñu de dañoo dem almadi reer yi ba trois heures du matin voilà rey nit ba pare dem Almadi reeri. mais enquête bi mu ngi continuer ba tey. enquête bi mu ngi continuer bi defeere defeere nañ ko. mais mais il faut il faut tamit parce que ñoom version bi ñu joxe. Mhm. mooy bu xaaba bi daf leen wax ne. Mhm. bëy bu may saraxe la waaw wax nañ ko démb voilà moom laa dugal xanaa du benn bëy kon parce que ñu ne affaire bi dafa diis xanaa du ah, cinq bëy kon ah, lañ koy mais jàpp naa ne nit ak ni mu foore bakkan ak ni mu dëgëre mm-hmm. ñoom ñi ab àndoon ci jàpp bi duñ ko xam bu di ko dem di reer yi mm-hmm. mm-hmm. dana ma jaaxal mais bon layeluñ kenn waaw layeluñ kenn suñu suñu boy yi mais ki doon examen gelam bi ak gel ba nee nañ après session octobre bi lañ leen di jugé ah, nañ leen dimbali waay waaw tey nañ leen moom nañ leen dimbali waay nañ leen dimbali bu ñu génn ci ray gi nag euh, keneen ki dee Eh, sa mbokk technicien la de. kan ci dee buntu kër Youssou. waaw mais kooku. Ah, kooku ah xalaas kat du tëb xalaas nag. kooku kooku képp koo xam ne da ngay liggéey TFM. Mhm. soo bàyyee xel di ko di nga xàmmee. Mhm. man waa ji xàmmee naa ko kar na ma karati ma. da daan ñëw daan wax naan rocci leen sama émetteur yi ngeen roof sama xol bi xaw ma sama bopp bi di ko wax lu bare bare man bi ma koy mujjee gis tournevis la yoroon. di wax loolu bi ma wax ma xam ne kii nii daal xaw ma daal nu mu demee nii. Mm-hmm. après ma ma romb ko dem mais loolu ku fay ñëw am na ay jamono benn maire ñëwoon fa xaw ma yaayam la xaw ma kan la di jéggalu gardien ya parce que waa daa ñëw foofu di perte di di perte bi ca bunt ba. Mm-hmm. loolu moom euh, puisque man damay génn souvent di taxaw ci bunt bi <laughs> njaay naan ma sa militant yi ci buntu rajo beeg buntu télé bi ku ñëw man dama lay déglu mais bokk na ci ñi nga xam ne moom xàmmee naa ko ca buntu télé bu mu fay ñëw lu bari yoon. xam nga xam nga ba luy dëgg. Mhm. mooy bu ñu ni yàlla nattoo nit ñu àndut ak seen xel. Mhm. dañu leen di assumer di leen téye. Mhm. di leen taxawu di leen sàmm. moo gën bon néew ma dañ koo sàggane nag. kenn yóbbu su may wax. mais moo gën. yàlla nattoo la nit ku àndut ak xelam. nga wane ci càggante. baa nga fooyoyal ko. ba mu dee nga taxaw naan fii la dee ak faa la dee. fu mu mën di dee amul solo li am solo mooy bakkan dem na mm-hmm. Mm-hmm. mais bakkan bi bi muy jóg bay dem ji faatu ji ci mm-hmm. kër la bàyyeeko ay nit la fa bàyyi cest nit bu àndut ak xelam wala nit buy wax wax yoo xam ne xam nga ne kii li muy wax taxawul say bët warta jóge ci moom. Mhm. est-ce que ñoom nangu nañ ni seen doom ànd ànd xelam. ah mais déet en tout cas nag ki ñuy gis ñun. mais ñun ñi muy ñëw di fekk si. waaw ah, xam nañ wax jim ñuy wax. waaw du wax du wax du wax nit. du wax nit dañoo monté ay émetteur sama sama xol bi rocc leen ko. déedéet du ca yam de ba 2S tàkkee. waaw du fi commencé di tàng. effectivement te 2S ndëkk tàkk TFM. voilà am na yoo xam ne bu la ko nit di wax war nga xam ne kii dafa laaj toppatoo. télé yëpp lay lim nag. léegi nag comme ñoom dañoo nekk ci tiis. Hmm. dañ leen di masaw hmm. masawu leen bu baax a baax a baax a baax mhm. di ñaan képp koo xam ne yàlla nattoon na la nit ku àndu tax xelam mhm. lay war a soli sax sax say bët bu mu jugee ci moom mhm. te gis nga nit kooku su reyoon nit su fekkoon yàlla tere su fekkoon kii faatu moom dafa rey nit ba coow li jóg léegi ñu génne ko kayit yi ay kayitam mais ginnaaw dafa faatu ak anam yu mu faatoo. Mhm. lu nekk ciy dégg mais tey ji koo fi koo fi gis ak ñu génnee ñu gën koy mais nag bon yàlla en tout cas daal xalaas moom du romb xalaas. xalaas balaa muy am na ay express express am naa ci bu kilifa gi xam nga kilifa euh, dañ koo filmé ci yenn actes yeeg yu demee noonu te yow comme yaay dem di enquête moom ah, tey damaa génn enquête indi la boobu moom wax dëgg yàlla kilifa wax dëgg yàlla bu yanamar wax dëgg yàlla kilifa bi nekkoon kilifa waaw sama xam naa ko baax a baax a baax sama waay la kilifa bi ànd ak caat xamuluma ko xamuluma ko lu bon wax dëgg yàlla loolu ma gis ni ko ñëpp gise laa ci laa laa laa ko gisee nit da ngay wax da ngay wax rek sa li nga xam te yàlla tax xaw ma nag affaire ya na ci su ginnaaw si na ngi waaw yàlla ko yàlla euh, ki leeral rek su fekkee lu am man man miinuma ko sama xarit la xam naa ko man xam naa ko bu baax cee wax nag hmm. ah, ah, ah j'évoque la clause man de ah, sama xarit la en tout cas yàlla na ko yàlla sàmm yàlla defal ko amiin amiin seeku ñu demlante ak dikkalante mm-hmm. sequñu ko. xanaa seq nañ lépp man ak moom. waaye nag moom fu ñu daje. danañ joxante cër. nit ko am cër la. voilà donc lii ñu koy waxal moo defam deful moom dégg naa ko mu ne na justice ñëw. wala na ko justice woolu mu leerlu. yal na yàlla sàmm ko. comme nag moom pare na pour loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. def naam deful. Mm-hmm. ñay àtte ña nga fa. pare na pour wuy ji leen. bu ñu ko soxlaa danañ ko woolu lu ci yoon dogal ñu xam ne. miir Ndoye daf ma daan wax naan xaw ma ca dara du yóbbu kenn kaso. dëgg la de dëgg la de waaye nag comme ay fenn yu fi am. waaw faaw ñu waxtaan ci yaa ngi wax dugal nit rek ba. Ah, yaa ngi wax maire Ndoye sama xel dem na sama yaay Assou Seck maire Assou Seck. waaw ah. Parcelles Assainies. Mhm. unité 12. ñu ngi mhm. leen di nuyu yéen ñëpp. unité 12. waaw ban xamoo fa. xalaas bi lu mu wax que ni. maire bi nga xam ne dañ ko doon xaw nañ koo rey di euh, mbaykaan a ko xaw a rey. Hmm. du mbaykaan loo nag sunu xarit. i <laughs> waaw la ci man de. waaw kooku sama copain la. Hmm. doomam yëpp pire lañ jàngee arxuraan ci daaray xaale Amar Fall ñu koy ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax. kooku sunu Cheikh Dieng la yaakaar. déglul bu baax maire nag la gën. Hmm. ayca fi mu def lii du man rek la ko def ñi mu ko def ñëpp bari na voilà léegi numéro téléphone benn tigo la yor si whatsapp dong la ciy wuyu du ci nangu wuyu téléphone te des fois nga woo ko du wuyu rakk ji yor naa numéro benn numéro orange boo leen ciy woo sax pour ñu wuyu problème la nu ma xamanteeg moom ni ma xamanteeg moom sama doom bi ma lay wax daf ko arnaqué trente million moom menuisier métallique la aluminium pardon aluminium lay liggéey ku mën liggéeyam am jom am kii léegi kooku moo ma boole woon ak moom ne ma yaay booy am na koo xam ne xam naa ko ndekete daf ko yeew ba yaayam sax du wax ak xale bi dafa dem ba dootul wax ak yaayam ni magam ñëpp la ko dëddaleel ñëw ne ma am na ku ma xam dafa mën liggéey dafa mën def nii te ko moom moo ne ko présenté ma sa yaay bii mu wan ma ko ne ma nag sëriñ la dafa mën ma ne ko waa man daal sangat ak yooyu rek laa bëgg sama yaram daal muslaay ginnaaw yàlla ak yonent bi muslaay voilà léegi noonu la xamanteeg waa ji boo ko gisee xaaral ma yónnee leen photom ngeen xool ko ku mu ne ku mu nax bu doon keneen am naa kër almadi am naa kër maris am na kër fii amul sax fu mu dëkk dem na ba ne may na ma terrain Touba ma ne ko lu ma yàgg a nga ma may ba jël sama euh, copie d'identité gëmoon naa ko ay oto yu luxe ndekete amul dara sama 30 million doom ji ak ñeneen ñi sama kii sama doom la ci man ñooñu la jël mais bandi boo xam ne moo rakk ji ak ñeneen ay complice lañu ak ñaareel bi xaw ma lañ wax voilà mooy bandi bi moo rakk ji gis nga ni mu yiw yiwloo nii ak oto yi mu yor kër yi mu nekk yëpp nee na moo ko moom ndekete amul sax amul charrette sax bay am puxus bu mu dëkk day luwe fu nekk ay deux jours trois jours wane ne moom moom kër yi noonu lay naxee ñëpp dem ba photo woog maam ab Ablaye Wade xaw ma kañ la woon dégg naa yàgg na photo bi am na yeneen vidéo mais bëgguma jabaram ji feeñ ci xaaral ma yónnee leen ko ma seet beneen bi bu mu nekk moom kenn comme vidéo bi ma yónnee lii la ma yónnee ne ma engrais la ak suukar yooyu arrivé payé port mu ne ma boo maire boo ma joxee xaalis bi deux jours boo ko joxee tey deux jours ngay toog nga jot ay millions yu bare parce que da nga toujours da ngay génne xaalis te dara du dugg maire dama la yërëm ndax yow benn loxo nga waaw bëgguma ci woon boole kenn nag lii bon sama secret bopp la ñu bare ci ma ñu ngi bëgg ma dugal leen ci ma bañ mais yow comme sama yaay nga ma ne xaaral rek ma dugal la ci waaw lii moom maire barke sëñ Touba lii moom bu soobee yàlla arrivé paye la voilà buy ñëw rek ngay jot sa xaalis dans deux jours ak ni ma wanee toujours di wax yiw baax même video yi muy fekk sax maa ngi koy doog a jot xaw ma woon sax day fekk au début di sëriñ def mën dafa yiwoon ndekete yu bandi bandi bandi laa tasel te du man rek numéro xalaas bii nag jox naa ko keneen jox naa ko ñeneen bu ñu bëggee ñoom tam ñu def ni man dina maa ngi yónnee photo yi ak message yi pareegu ma fi mu tëddee photo boobu la yónnee ñi mi troyande ñëpp danaan asma la yor ah, di wax naa ah, ah, man la tëdd hôpital mais kanam gi doo ko gis. dégg nga ko mais waa ji nga xam ne moom moo ko def loolu. Mhm. mbaykan ba ngeen soo leen bëggee ñu une minute rek ñu jox leen ci ay kàddoom li nga xam ne mu def ba dóor waa ji maire déglu tuuti rek. ayca. ak yaay booy ture ture ture ture <laughs> waaw waaw daanaka lépp lu ma waroon def ak ñoom euh, support bi def naa ko xam naa da nga may wax ban heure rek laa koy yebal mu teel a ñëw xam naa moom sax port la may fekk ndax damay damay bëgg ñoom tamit ma ma eggee rek ñu tàmbale ma génneel bagage yi bu ko defee yëpp mën a gaaw euh, li ma la waxoon noonu. ci kër ga comme ni nga ko waxee nii rek noonu noonu koy defee incha allah xoolaat naa ko baax nag sunu borom yóbbul jàmm dal ak jàmm waaye nag yaay booy bu yiy jàllee bagage moom ah meuble yooyu noonu bu ko boo boo koy jëndati xam nga li muy jar Chine dafa yomb lool lépp kenn mënu ko wax yaay booy du nag sax bëggee wala dara waaye bagage yi li muy jar Chine dafa yomb lool. lool yàlla xam na ko fii di bagage dafay cher waaye nañ ñaan yàlla rek incha allahu rabbi ba lii moom boo ci liggéeyee un mois rek di nga mën a am loo xam ne boo la neexee sax nga daggal sa bopp bii te du laal sa xaalis nga dem Chine jënd li nga bëgg lépp mottali sa kër yàlla nañ suñu borom yóbbu ak jàmm yaay buy noonu noonu noonu noonu nga koy defee rek ni ni nga ko waxee noonu saafara yi jëm ci kër gi yëpp noonu kese nga koy defee ni nga ko waxee noonu rek waa jooju ngeen dégg moom mooy mbaykan soi-disant mbaykan wóoruma ndax noonu la tudd mm-hmm. mais mair bi li ñu yónnee ci ay photo waa ji kenn xamul mu toll waa dem na ba ni ko maire bi di ko laaj xaalisam mun ko maa ngi hôpital tëdd won ko won ko benn benn waaju ju mel nii kii eh, Daouda juuf tëdd photo <laughs> ñu perfiliser ko yam koy affaire mais kanam gi feeñul mun ko maa ngi nii damaa feebar xam nga gis nga ni fi mu jaar maire bi naan ko ay waaw maire Touré Touré Touré di ko di ko nelawal. <laughs> naan ko li ngay jënd nii fii. waaw mais waaw mais dinañ moytu genre gars yi Mouhamed Ndiaye yooyu di di di leem-leemal di di di. naan ko boo demee Sine dafa yombul lool ndeysaan mais ni ku la yërëm. wala yàlla xam na ko boo demee Sine dañu koy jaay lu yomb lool. te gis nga moytul ma itam mën naa ku ne. <laughs> te te moytul ma tey jii tenant yi ku lay ñëw na gis ni fekk ne taal taalibe seex nga moo ñëw ba gën laa bëgg seex te ngeen di liggéey ngeen di liggéey affaire xaalis nii <laughs> mu non c'est vrai soo leen liggéey ci affaire xaalis koo xam ne ana yow ana man la ngeen bi ngeen xamante yàggul mu fekk nga xam ne taalibe seex la ah. mu gën laa bëgg seex mu fekk ne yow taalibe seex Basiru Abdou Xaadir nga mu gën laa bëgg seex Bass defal attention la de ba balaa màggal gee del si di moom moo gaañ la dëgg la de bal beekee balaa gàmmu gee gën si mu gaañ la te table su moytul da leen dem ca marché bi jënd fa ay ay kii seex indi la ay parfum naan la lii maa ngi ko jëlee ca fees lii naan la maa ngi ko jëlee ci ginnaaw jomay Tuubaa ay dóorkat lañu li nga bëgg ca lañ lay fekk si soo naan la yow lii fekkee nag taalibe seen yomb loo su fekkee taalibe seen saaliw nga nag moom xam nga taalibe seen saaliw dañoo gaaw a daanu dañuy jooy boo la sëriñ saaliw rek ñu jooy voilà kool li ñu yor yëpp dañ la koy jox moo tax ñi ngi leen di bëgg a rey <laughs> jooyal ci xol waaye nit ñi mais nit ñi lan moo tax ba soo bëggee Bob Marley nag moom non da ngay naqaree nax soo bëggee Bob Marley ca la fekk day indi ay affaire ay bagage lay indi <laughs> di coxandoog de la